sein ba tax na tey jii ñuy dalal LISCA Ligue contre le cancer jaare ko ci Rose Gaye Ndaw moom mooy vice présidente bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm madame Ndaw maa ngi leen di fay. Mm-hmm. jërëjëf di leen jaajëfal ci invitation bi. Mm-hmm. Ah, aywa Cheikh Tidiane ñu bàyyi la nga door euh, waxtaan bi. voilà euh, Rose dañ koy euh, tàmbale ak déjà sa engagement ci xeex mbirum cancer du col de l'utérus cancer du sein. lan moo nekk origine engagement boobu ba tax nga soobu tey ci xeex bi. d'accord euh, li ma leen di kii rek mooy euh, liska xeexul rek cancer du sein ak cancer du col. LISCA cancer yëpp lay xeex. lii ma ci dugal nag mooy euh, man dama am naa ay cas de cancer ci sama famille waaw am na ay cas de cancer ci sama famille mais. Euh, ñooñu amoon nañu moyen wu faju mhm. donc euh, metti woon na surtout que am na ci ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan mais li ma gënoon euh, dugal ci man ma engagé wu ci xeex cancer mooy ki doon téye sama doom yi dafa amoon cancer mhm. ma koy gunge pour mu faju parce qu'elle n'avait pas les moyens ma koy yóbbu hôpital bi mu commencé di sonn tuuti bu ma ko yóbbu war a dem hôpital dama daan jël sama journée yóbbu ko bu ma ko yóbboo hôpital toog ak moom ba mu gis médecin beeg yooyu pour ma xam exactement li ko dal ci laa gis nag ñi am cancer coono yi ñuy jànkoonteel bu ñu waree faju hôpital loolu metti woon ma torop ba bi mu ñàkkee bakkanam après ma ma sóobu ci jàppale ñi ci am cancer. waaye mm-hmm. boobu léegi ça fait combien d'années? oh c'était depuis 2005. depuis 2005. waaw donc 2005 ba léegi on imagine que. Euh, euh, gis nga ci dund nga ci ay cas yu métti yu gën a waar sax euh, yooyu nga xamee ni mooy sa ndaw soosu nga doon jàppale. Mm-hmm. waaw waaw am na ci ay cas yu métti ndax da ngay gis yenn saay nit ñu ñëw nekk ci ay jafe-jafe yu métti non seulement dañuy am feebar bi mais. am ay euh, situation familiale yu metti bu ma la nee euh, lu ci gën a bëri jigéen ñi bu ñu amee canceru ween wala ñu am canceru butitu njurukaay euh, lu ci gën a bëri seen jëkkër yi dañ leen di abandonné nga am donc feebar bu day ni feebaru cancer ak ni mu mettee ba pare doo am ku la taxawu moment bi nga gën a soxlaa ñu taxawu la moment boobu lañ lay ñi la war a taxaw di beddeeku bàyyi la ak sa feebar. yooyu gis nañ ci euh, ay témoignages sax ci benn journal bu ñu doon lire sànq gis ay euh, femmes yoo xam ne ay soxna yoo xam ne bi ñu ko yëgee euh, seen atum dafa tukki carrément. parce que xam nañ ni li ñuy nar a teg ak feebar bi waxuma la sax feebar bi rek mais déjà pression psychologique yi mu lay jural rek dafa doy waar. récemment rek am na kenn ku nga xam ne. dafa ñëw euh, am métitu ween ñëw ñëw Liska il y ñu defal ko analyse yëpp gis ne dafa am cancer bi mu xamee ne cancer la am mu jóge carrément euh, Liska ñëwatul gisatuñ ko dem këram waxul kenn dara ba récemment il y a tout juste six mois lay euh, sëram di waxtaan ak moom nekk ak moom ñu ne sœur bi conc ko te teyu ko rek deret ji mm-hmm. sotteeku mm-hmm. mu ne ko lii lan la ñuy doog a gis ne que dafa am euh, dara ci ween bi mais boobu c'était trop tard fekk na mu am ay métastases. Mm-hmm. mais est-ce que amul sax ak soxna yoo xam ne dañ koy am euh, di ko nëbb seeni entourage am ñoo xamee ni sax déni la leen di def duñ ko bëgg reconnaître mooy ki may wax nii bi mu ko amee biñ ko ko waxee dafa dem rek toog jàpp ñàmburam wax ko kenn du yaayam du sëram yi du kenn ci seen kër kenn yëgu ko boroom këram nekku fi woon waxul kenn dara il a fallu que bi gaañ ko gis deret ji ñuy doog a xam li ko dal mm-hmm. mais loolu métti na c'est vrai que euh, reconnaître gi am nga feebar bi métti na waaye tamit lu gën mooy nga euh, siwol ko bon pas siiwal ko mais euh, nga dem sa njaboot xam ko ngay dem di faju ji parce que leneen mën na la ci fekk lu gën a doy waar. loolu mooy liggéeyu LISCA ci sensibilisation bi. loolu vraiment la ñuy def euh, ay jéego yu rëy ndax tey jii li ñu bugg mooy nit ñi xam ne que cancer mook beneen feebar ñoo yem. feebar bu nit ki mënta am cancer feebar la. nañ ko jàppee feebar xam ne feebar la te yem ni feebar la comme yeneen feebar yi ñi mhm. ngay sojee di ko wax mhm. noonu nga war a mën a amee cancer wax ne dama am cancer c'est pas une maladie honteuse du lu ñu war a rus waaw dafa hmm. nekk euh, parce que dañu gis ne activité yi euh, ni muy xumbee ni muy amee ampleur euh, sur le territoire national mois d'octobre bi du ñu fësee ci yeneen weer yi ci loolu est-ce que jotul tey ngeen gën a yokk tuuti donte vraiment jéego yi ñu ngi koy rafetlu yéen initiative yoo xamante ne bu mënul am benn par aussi mu gën a euh, fës daal bu ko defee euh, côté sensibilisation yooyu soxna yi gën a xam danger yi nga xamante ne wala sax ñi ko am moom lañu ñu encourir. LISCA dafay sensibiliser du 1er janvier au 31 décembre. Mm. naam nag yéen journaliste yi. weer wi leen comme yéen a taamu weer bi yéen a ñuy euh, gën a fësal ci weer bi ndax aussi c'est quand même un mois international. Mm. du liska mooy def octobre rose moom boppam mais par exemple. bu ma la nee cancer yu ci bëri. c'est juste à titre symbolique en fait mois d'octobre sur le plan euh, international. pour mhm. ñu ne weer bii lañ jagle sensibilisation terewul yeneen ci des yëpp dañ ciy waxtaanee. weer bii la ñu jagle. Mhm. sensibilisation wu cancer oui. du sein. Euh, juin la tuddee juin vert. Mhm. moom la ñu jagleel sensibilisation wu cancer col de mais comme col de cancer boobu du cancer bu nga xam ne bëri na ci àddina bi ni mu bëree ci Sénégal mm-hmm. parce que mooy premier cancer au Sénégal loolu moo tax ñun comme octobre rose moo gën a fës LISCA dafay boole canceru butitu njurukaay ci mm-hmm. octobre rose mais octobre cancer du sein lañ ko jagleel mm-hmm. butitu njurukaay bi col de l'utérus juin lañ ko jagleel prostate novembre lañ ko jagleel mais euh, LISCA dina def yëpp sauf que comme cancer gynécologique yi ñoo gën a bëri mhm. amaana xëj na suñu wax ci cancer boobu moo gën a fës mhm. mais taxul ñuy bañ a def ay jéego ci yeneen cancer. Euh, concernant cancer gynécologique yooyu noonu waxoon nañu nit euh, dafay am gratuité Euh, maanaam faj bi ci yenn lu ci mel ni chimiothérapie bi du ñu fa euh, du fay te moo ne tout le temps ñi am jàngoro bi dañuy jànkuwanteeg ay jafe-jafe lan la euh, kilifa yi deful wala lan moo manqué ba tax faj bi continuer métti ba léegi ndax yéen ñi liska sax xaj na ay bonne volonté ñoom ñooy ñëw di leen jàppale yenn saa yi ngeen ngeen mën di jàppale à votre tour nit ñi amee jàngoro ay bon volonté rek ñoo ñuy jàppale pour ñu mën a faj euh, accompagner malade yi ci seen faj euh, gratuité chimiothérapie boobu plaidoyer bu LISCA doon def depuis des années et des années yàlla def en 2016 gouvernement bi dégguñu euh, kii ko mais gratuité bi ci médicament yi ñuy gën a utiliser ci chimiothérapie bi la mais du ci chimiothérapie ciblée yi c'est-à-dire chimiothérapie boo koy def am na yeneen garab yu nga xam ne mën nga ko utiliser mais garab yooyu gratuit wul loolu moo tax mu am ba tey fay bu war a am ci yenn chimiothérapie yi chimiothérapie bi itam gratuité bi ci médicament yi mu am yenn saa yi dañuy teg ay rupture yooyu yëpp nag problème la ci ci faju bi mhm. moo tax seeraay bi euh, jaaxal ñu bari balaa ngay ñëw euh, foofu sax Marcel mais euh, ci mbirum prise en charge beeg assistance beeg yooyu yéen a ngi doon ba léegi sax yéen a ngi ci di bëgg a taxawal lu ñuy wax maison de vie cette maison de vie boobu nag wax ngeen ci ba am terrain waaye fi mu nekk nii yëf ci terrain la yemagum déjà. ñan ñoo leen ci war a jàppale ak loolu lan la war a euh, yokk ci euh, progression bi ngeen di def ci xeex bi. ak terrain bi am ko ndax jafe woon na et puis naka la. terrain bi moom euh, dinaa leen ci boole yéen. Hmm. danaa leen ci jaajëfal. parce que 4 février mooy journée mondiale du cancer. yéen ma invité woon fii. ma wax fi nekk ñu ngi wut terrain. bi ñuy wax loolu mu am benn femme. bu nga xam ne elle vit euh, hors du Sénégal euh, bëggul ñu wax turam. Hmm. mu seetaanoon émission bi bi mu seetaanee émission bi elle a passé à près un mois di wër sama numéro ba am kenn ku ma xam hmm. wax ji egg ci moom mu ne ko ah man xaw ma ki ngay wax ci Liska mais am na ku ma xam ku nekk Liska. Hmm. te kooku xam naa ne que bu ma joxee numéro am du ko metti xaaral ma jox la numéro bi nga oote ba xam mu ooma ne ma dafa amoon ku dem euh, ci benn euh, émission di wax waxu da ngeen di wut terrain ma ne ko effectivement man la mu ne ma waaw man dama buggoon may la terrain ma ne ko déet du man ngay may terrain Liska ngay may terrain bi mm-hmm. noonu lañu amee terrain bi aujourd'hui effectivement euh, ma koy remercier bien vrai que bëggul ma tudd turam mais xam naa ni xëj na dina seetaan émission bi bu ko seetaanul ah site bi fu mu nekk à Grand Yoff ah, allah waaw c'est accessible c'est accessible et au cœur de population ñun bi ñu cible ah, ah defar ko defar ko nag. léegi defar ko voilà tabax ko am terrain yomb na waaye tabax bi moom. tabax bi waaw foofu tamit. am na ñu ñu ñu wax nekk dinañ ñu accompagner mais àggaguñu ci am li ñu war a tabaxee ba mu jeex. Mm-hmm. mais maison ñaata la ñaata ngeen ko estimer li ngeen soxla pour tabax ko. Euh, selon mm-hmm. li ñuy am. Mm-hmm. on a plusieurs plans. tey jii bu dee suñu sago. vraiment dinañ defar maison de vie bu nga xam ne dootuñu amati benn malade bu am cancer jóge ci àll ba ñëw fii war a faju di fanaan ci mbeddu hôpital yeeg di xatloo ci kër ay mbokkam parce que feebar bi dafa metti mhm. te ñëpp xam nañ ne kër yi dakaar dañu xat boo jógee ci beneen gox ñëw fii di dem sa kër mbokk mhm. boo fa waree yàgg tuuti rek euh, new ma dinañ la xatal mais di nga gis ne sonal nga leen mhm. loolu moo indi maison de vie bi. Mm-hmm. te li nga wax sax euh, c'est tellement vrai euh, man am naa mbokk yoo xamee ni dafa doon defi Kaolack la doon jóge di ñëw fii di defi chimio su pare day ñibbi waat sur le champ mais. durée voyage bi du xam sax lu mu nekk day woccoog lu nekk da koy def. pour vous que euh, loolu ngeen bëgg a taxawal su amoon mën na dem toog foofu euh, noppalu ba yàlla may ko jàmm mais ñan ñoo leen ci war a mën a jàppale quand même état aussi est-ce que amu ci wàll euh, ngir jàppale leen parce que am na ñi ngi. lijjanti yoo xamee ni c'est moins utile que lu toll nii maison de vie quand ci dëkk boo xamee ni on parle de milliards de milliards partout loolu warul nekk lu jafe ci yoon li ma bëgg rek euh, wax mooy ñun on est euh, une association de la société civile affilié wuñu ak état bokkuñu ci état duñu démembrement ministère de la santé dama bëgg aussi loolu leer naññ ci wax bi parce que souvent nit ñi dañuy accuser waaw euh, yéen LISCA état bi euh, defu leen li leen war. mais mën nañu contribuer quand même wala loolu aussi. mën nañu contribuer te ñu am nañu benn subvention bu nga xam ne état bi mi ñu koy jox une subvention de vingt millions par an pour suñu budget de fonctionnement. waxuma bu état bi contribuer dama bëgg rekk wax nekk ñun amuñu benn moyen obligé état bi en rien ñun ñoo xëy suba ay bon volonté ñu ne dañuy regrouper wu pour adhérer LISCA xeex cancer LISCA est une association qui existe depuis 1985 1985 benn association bu nekk France moo bëggoon may euh, Sénégal benn machine radiothérapie mooy seul machine radiothérapie cobaltothérapie bi fi amoon indi woon fi coow bu rëy bi. 1985 la ko association mayoon benn association wu Sénégal ay médecins créé LISCA bi ñu recevoir machine boobu ñoom ñu arrêté activité yépp ñun en 2009 ñu gis ne que xeex cancer jar na suqaliwaat mhm. ay activité wu LISCA ñu ñëw di ci nekk ba waxtu wii ñu nekk état bi lu ñu jàppale ñu jël ndax mhm. soxla nañ ko mhm. vraiment appel lay def ñu ngi def démarche dans ce sens là ñu ngi def démarche dans ce sens là ndax plaidoyer yi ñuy def état rek moo ñu ci mën a jàppale tey jii bu ñu waxee plaidoyer wu gratuité chimiothérapie bu ñu ci àndul ak état bi duñ ko mën a am bu ñuy wax maintenir le prix ñu ñu ñuy jàppale prix wu radiothérapie bi à cent cinquante mille même su fekkee ni dañu jënd machine yu bees yu gën a xarañ mais nañ ko bàyyi ci prix ba mu nekkoon bu ñu ci état bi jàppalewul du nu mën a dem donc dañuy dem ak état mais amuñu benn moyen de pression ci kaw état bi lu dul suñu plaidoyer alors ak euh, yéen itam nag ngeen jàppale ñu ci. Mm. incha allah c'est justement peut que la transition elle est tout est toute faite euh, madame Daw di la féliciter quand même ci euh, liggéey bi def qui n'est pas facile am na ay numéros yi ngeen mettre en place via Orange Money et Wave leen ci dellusi peut-être après en termes de don nga fàttali ko téléspectateur. bugguma la rek dog mais loolu boo ma ci oowee. dama koy wax léegi léegi balaa muy kii. Orange Money bi. c'est dièse 144 dièse 626 dièse. c'est ça. nga def don pour euh, euh, par Orange Money. Mm-hmm. Wave bi da ngay dem Wave nga dem ci paiement. Mm-hmm. boo duggee ci paiement Wave di nga gis Liska nga cliquer ci Liska def sa don. may wax nit ñi ne euh, toq-toq. mooy indi. yuréet mm-hmm. maanaam bu kenn xeeb dara. bu kenn xeeb dara. cent franc sax. Mm-hmm. bu dee mën nga ko joxe joxe ko te xam ne cent franc boobu. bu ñëpp joxee cent franc dina am njëriñ. Mm-hmm. alors madame oui alors fi ma fi ma bëggoon après ñu yegg mooy en terme de chiffres est-ce que tey boo leen analyser au fil des ans euh, ñi ngeen di jot dajal ci wàll boobu noonu nga xamante ne am nañ doomu jàngoro boobu est-ce qu'on peut dire que l'espoir s'amenuise ou bien euh, quand même euh, yéen a ngi euh, am ba léegi espoir que mbir yaa ngi wàññeeku wala ndax ñu ngi yokk au fil des ans depuis que ngeen di. et en termes chiffrés quoi depuis 2010 ngeen nekk ci terrain bi. c'est ça di xeex ñaari ñaari cancer yëpp. Mm-hmm. ma mës a wax que l'espoir s'amenuise. Mm-hmm. si on pensait que l'espoir s'amenuise na kon on va baisser les bras dinañu bàyyi xeex bi mm-hmm. duñu continuer. ñu ngi jonkonteel ay jafe-jafe yu métti pour mën a accompagner malaat yi ci seen traitement ñu ngi jonkonteel ay jafe-jafe yu métti yenn saay ñun dinañu toog sax du ñu mën a fay loyer ndax LISCA amul siège fi ñu nekk dañ ko loué mais fi nekk sacré fi nekk Sacré-Cœur dañ ko loué moomuñu ko mais ñu ngi ak espoir parce que déjà ñu ngi gis njariñu li ñuy def tey jii ñu ngi def ay émissions di waxtaane cancer avant bu ñu daan def suñu premier octobre rose c'était octobre 2010 dañ doon dugg ci koñ yi di wax nit ñi dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonent bi jigéen ñi génn leen ngeen ñëw ñu seetleen leen gratuitement léegi bu ñu wootee duñu ñu mën contenir. nit ñi ñëw donc mënuñu wax ne l'espoir s'amenuise bu ñu wootee les femmes viennent elles sont dépistées ñu ngi leen di dépister ci vraiment ndorteelu feebar bi. tey jii jigéen bu def mammographie ñu gis cancer wu moins d'un centimètre du ñu dagg weenam. mën na sax bañ a def chimiothérapie duñu ko euh, kii dañuy dindi rekk buul bu ndaw boobu mu garder féminité am garder weenam te espoir après cinq ans mu cancer bi dañ ci moom mhm. c'est à quatre vingt dix pour cent Mm, mooy mooy wane importance malade euh, euh, malade cancer yi ak hôpital Aristide Le Dantec ba ñu ko tëjee service cancérologie bokk na xaj na ci service yi ñu mujjee euh, délocalisé wala sax bi ñu mujjee ñenn ñi ñu yebal leen dalal jàmm ñeneen ñi hôpital Ahmadul Khadim ba ca Touba ñoom am na ci ñoo xam ne yéen a leen di jàppale yéen waa ñoom naka lañ dundee jafe-jafe yooyu diggante période bi ñu tëjee service beeg ni leen di toxalee ak yi ñuy jànkuwanteel ñi ay jafe-jafe metti ci ñoom metti na torop ci ñoom metti na torop ci ñun metti na torop ci gunge bi ñu leen di gunge ndax tey jii euh, hôpital la Le Dantec euh, jéego yi ñu fa doon def fajum cancer foofu moo gënoon yomb ci yeneen hôpitaux yi léegi bu ñu leen yóbboo ci yeneen hôpitaux yi ñun fu ñu waroon joxe ñaar fukk pour jàppale malaat yi dinañ fa joxe fanweer. Mhm. lu mu ndaw ndaw. dinañ fa joxe sax ñeen fukk la gën a jege. léegi nag euh, hôpitalu Touba bi. problème yi ñu doon wax nii di wax waxu maison de vie bi par rapport ak euh, malaat yi jóge ci yeneen gox yi tey ji nit ñi bu ñu jógee ci gox goxaan yi ñu ne ak Dakar war a dem Touba amuñu fuñ fa dal xam nga defe naa lu mu ndaw ndaw ku ne am nga mbokk lu mu la sori sori am nga mbokk bu dëkk Dakar mais tey est-ce que ku ne am nga boo demee Touba foo mën a dal mënul hmm. nekk ah. mhm. parce que maison de vie bi kon euh, ci njeexital bi bu ngeen sañoon du doon dakaar kese mais xaj na di ngeen ko am ci diwaan yu bëri voilà dinañ ko am fu nekk déjà ñun dañu bëgg rek commencer Dakar mm-hmm. mais ci suñu bëgg-bëgg dinañ dem fu nekk mais ci jamono jii ñu toll tey tey tey bu nit waree jógee fii dem Touba pour faju dina xaw a metti ci moom. absolument mm-hmm. Alaaji Malick. waaw bi ci des moo di ni euh, liggéey bi ngeen di def macha allah en terme chiffré gis nañu ni jigéen ñu bëri léegi ñu ngi ñëw di dépisté wu euh, mais am na période bu nga xam ni affaire bi xawoon na am gàllankoor mu ñaari atu Covid yi ñu génn euh, yan jafe-jafe ngeen jànkoonteel ci côté boobu surtout pour accompagner malade yi ak pour gunge leen ci li nga xam ne mooy seen faju Covid bi dafa def ñi ñuy jàppale ñu ci bëri. Covid bi daf leen sooxeel. ñoom ci seen bopp li ñuy wax euh, bala ngay laax jaay dangay ngay laax lekk nit ki bu mënatul lekk moom ci boppam gëm naa ne du la mën a may. donc don yi ñu doon recevoir dafa wàññeeku bu baax te itam euh, ñun suñuy frais yokk avant Covid bi dañ daan def euh, ay journée de consultation de grande masse su ma ko mënee waxee noonu dañ daan woote benn jour ñu dem euh, ci stade ba jigéen ñi ñëw nekk deux mille deux mille cinq cent personnes ñu jël ay médecins ñu consulter leen ñu defaat beneen journée dinañ def ñaar wala ñetti journée peut-être ci mois bi ci mois d'octobre bi nii dañu obligé ak Covid bi comme munatuñu woon def rassemblement yi ñuy jël consultation gratuite yi du lundi au samedi au siège sur rendez di jël à peu cent personnes par jour ren itam mënuñu def niñ daan def ndax travaux yi am ci dëkk bi LISCA foofu lañ daan defee yenn consultation yi mënatul nekk stade bi mu ngi en reflexion c'est la même chose donc on est obligé continuer di woote du lundi au samedi li may wax nag mooy consultation gratuite gratuité bi ki ñu consulter rek la naam docteur yi ñëw ñun fayuñu leen liñ leen war a fay Mhm. mais quand même dañ leen di neexal pour ñu ñëw consulter ñu malade laay duggee ci ci ci ci li nga xam ne mooy le nœud de la guerre muy l'argent la recherche de moyen defoon ngeen fi téléthon doon wut euh, lu toll si un milliard je crois ndax mujjoon ngeen atteindre chiffre boobu ndax am ngeen yeneen stratégie yu ngeen taxawal wala boo beneen téléthon pour utaat encore xaalis ngir ngën a dimbali maladie un milliard bi xaajuñu ko jege <laughs> on était à peu près on était à un peu moins de cent quatre vingt millions on était à cent soixante et quelques cent soixante dix. pour un objectif d'un milliard. voilà euh, bi itam ñu ngi ci organiser téléthon moo xaw a métti. moo tax defaataguñ ko mais euh, bëggoon nañu sax def benn téléthon octobre bii ñu nekk. malheureusement mënul nekk. ñu ngi xool pour jéem ko def en début d'année. caravane euh, de sensibilisation waaw. Euh, collecte bi c'est plus euh, di comme ni joxe les numéros. yi ñu mën a don spontané kii ak ciblé yenn. structure yi yenn personnalité yi yenn personnes yi yónnee leen courrier ak di fa dem di ndax dem ngeen ci ci ñi nga xam ni ñu tey jii euh, ku jaaxle ci ñoom nga jëm muy suñu kilifa diine yi ndax seen kàddu am na solo waaye tamit seen euh, woote pour nit ñi jàppale leen am na solo ndax def ngeen ay démarches dans ce sens là. waaw euh, def nañu ay démarches dans ce sens là même bi ñuy def téléthon bi dem nañu. ci kilifa diine yi kilifa diine yépp woote ñaan askan wi ñu jàppale ñu capsule yooyu mhm. yónnee woon nañ ko ci presse bi ba ñu wax pour wax nekk vraiment ñu ngi ñaan ndimbal. Mm, mm, euh, ah, voilà voilà euh, sànq yaa ngi doon wax euh, Rose ci seen i téléthon bu ngeen amoon yéen amaat sax ci octobre bi mais déjà nous sommes à mi ci octobre Rose bi pratiquement la naka naka lañ mën a jàpp ci bilan à mi parcours lan ngeen defagum ak lan ngeen bëgg a def ci di des ci ci des. depuis le début du mois chaque jour jigéen ñaa ngi ñëw ci dépistage bi donc. dañuy woote euh, jël rendez ñëw am na ñu dul jël rendez ñëw mais bu ñu ñëwee itam dañ leen di jël parce que bëgguñu leen delloo mhm. ndax euh, ñëw faju ci cancer dafa soxla courage mhm. donc jigéen bi bu xasee ba jóg pour dépister wu mhm. duñu nangu mu dellu duñ la ni ajaloo ah, rendez-vous bari nañu nit demal ba suba ndax dañu ragal suba mu bañ a ñëw te bu ñëwul suba te fekk amoon na dara loolu quelque part yaay <laughs> yaa euh, voilà moo tax ñu ngi ñëw pour consultation yi ñu ngi aussi euh, di def euh, sensibilisation ci gox-goxaat yi ci kii yi ci école yi ci ci société yi ci structure yi ci marché yi ñu ngi def sensibilisation sensibilisation boobu ñu ngi aussi euh, di ki tey ji à mi parcours mën naa ne euh, au début la première semaine euh, xawoon na kii tuuti ay cinquante personnes lañ doon am ak yooyu fi mu mhm. nekk nii cent personnes jours yi ñuy kii. Mhm. ñu ngi ci parce que nit ñaa ngi ñëw di. Mhm. di consulter est ci di ngeen yéen a ngi jàpp ni que la maladie a reculé wala euh, dafay gën di law. mënuñu à mi parcours rek ak ci juste mois d'octobre bi ñu ne la maladie a euh, reculé wala mi law. en tout cas détection précoce bi. moom mi ngi euh, avancé. Mm-hmm. c'est-à-dire euh, ni ñu daan amee ñu nga xam ne pratiquement ci gunge leen xaar yàlla. Mm-hmm. rek la ñu mënoon def. Mm-hmm. loolu mi ngi wàññeeku bu baax. mooy mm. dalaloon nañ fi benn docteur mu ñuy wax ni que euh, mortalité bi sax dafa wàññeeku même si cas yi ñu ngi gën a bari. Mm-hmm. ndax yenn facteurs yi ak dund bi ni mu demee mais euh, mortalité bi moom dafa wàññeeku. cas yi mi ngi gën a bari sax mën nga ko jàppee ci sensibilisation bi. Mm-hmm. parce que avant daan nga gis ku nga xam ne dina am cancer ba dee ci cancer te du xam ne cancer la am. Mm-hmm. léegi day xam ne cancer la am donc cas yi mi ngi yokk. mais effectivement euh, mortalité bi. Mhm. mi ngi taux bi. Mhm. mi ngi wàññeeku ndax mooy kii précoce bi may wax. Ah. moo tax may ñaan rek jigéen ñi. ngeen may ma ma jàllale message. oui voilà. lu ngeen gën a teel a ñëw. ñu gën leen teel a mën a faj. ngeen mën a gën a teel a wér. des ak seen bakkan. Hmm. yàlla nag moo yor dundal ak dee. mais faju itam. yàlla moo ñu jagleel ñu xam xam-xamu faj moo tax lu ngeen gën a teel a ñëw gën a mën a teel a faju gën a mën a teel ci génn te xam ne dañuy faj cancer. Mm-hmm. Euh, kon euh, pour terminer Rose Gaye Ndaw tey ku toogoon ci këram di seetaan tele bi euh, jàpp ni tey ji balaa moo tëdd wala balaa moo yendu war naa xam yaram lu ci nekk mën na xëy ñëw ci yéen waaw te itam xam ne jigéen. Mm-hmm. am na lu muy làmbatoo weenam mm-hmm. palpa autopalpation nu muy làmbatoo weenam ba xam yaramam mm-hmm. ba nga xam ne bu amee lu ci bokkul lu ci mel ni doñ mm-hmm. dina ko gis teel ko gis mun a teel a ñëw ñu faj leen. Mm-hmm. et nga fàttali ñu rek euh, Orange Money ak euh, Wave euh, yi ci dépôt yi ci ndimbal bi ak beneen mbir tamit bu ñuy boo xam ne dañ koy wax yenn saa góor ñi di la xoolaat ni ñoom tamit cancer du mën na leen a dal. <laughs> waaw loolu itam il faut que ñu jàpp ko. ah mi ngi noonu mais il faut que jàpp ko. Ah. même bu ngeen amul ween bu génn. am ngeen ween am ngeen ween. Mm-hmm. cus la jàpp. <laughs> waaw cus boobu moo cus boobu nag moo important non non il est très sérieux oui, parce que cancer du sein ci cus boobu lay commencé absolument jigéen bi foofu lay dooree. Mhm. moo tax góor ñi cus boobu ñu am. moo tax ñu mën a am cancer du sein naam bëriwul. Mhm. rek. mais il faut ngeen jàpp ne. un pour cent wu cancer du sein yi. Mhm. cus boobu cusu góor yi boobu foofu lañ koy amee. Euh, ci euh, don yi euh, ñu don yi donc Orange Money. Jazz 144 Jazz 626 Jazz. Mhm. Wave. Mhm. paiement. Ah, Lisca. <laughs> Ah, mm. ngeen def seen doom paiement Liska euh, ci wéef bi. ci wéef bi merci beaucoup xam naa mm. certainement. Euh, dinañ ko jàllale waat rek euh, ah ah. comme ni mu demee woon ci terrain bi rek. bonne volonté yi tamit comme ni ñu ko déggee woon ci télé bi. ñu jàpp ci génne xaalis bi ñu tabaxal. Mm-hmm. maanaam taxawal maison de vie mm-hmm. boobu nga xamee ni. Mm-hmm. njëriñ rek moo ci ne. njëriñ rek moo ci ne 144 J 126 e J e e, nest pas pour arrangement ni bu dee wéef bi paiement la dem ci Liska. merci beaucoup merci beaucoup. Rose Gueye Ndao na nekk xaalis bëgg nañu bu dee fer bëgg nañu bu dee koppar bëgg nañu mm-hmm. bu dee nit bu nga xam ne aussi euh, am nga vraiment comme bu la permettre nga tabaxal leen ko nga dem nga jàpp architecte yeeg ñëpp daal maçon yi kuuku yi man daal bu ngeen tàmbalee man dinaa ñëw jël sama peel jàpp ci euh, liggéey merci merci Rose Gaye Ndaw jërëjëf merci beaucoup sant la gërëm la bu baax a baax euh, di euh, fàttali rek ni ba tey weer bi lañ jagleel sensibiliser dépistage cancer du sein maanaam ween waaye at wi yëpp daanaka ci la ñuy xeex cancer ndax cancer ak bu mu mënti doon ak jafe-jafe yi muy indil ak nit ñi muy faat ci Sénégal bëri na loolu merci Rose Gaye Ndaw malheureusement tey Souleymane Niang tey du ñu mën a ànd ak moom kon dañuy jàll rek ci uru l'observateur ak journal record